Diouf bi ci euh, xibaar yi mu dip euh, gis-gis euh, tey ji tolluwaayu ak ak doomu aadama yi si Sénégal la waxtaanee tey la bés bi ñu la ñu ko jagleel ñu ngi ci ligne bi ak maître Amadou Ali Kane maître nu ngi lay nuyu. ndaw yow avocat nga bokk ci RADDHO di kuréel gi nga xamante ni dafa taxaw rek ngir sàmm ak ak doomu adama yi sunu beneen intervenant bi di metre Pape Sène maître seen nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay njiital comité sénégalais gi ngàlloo ak doomu aadama yi. Euh, maître damay des ak yow maître Pape Sène euh, d'abord euh, ak ak doomu aadama yi boo ko doon natt tey jii fan nga koy situé fan la toll. waaw d'abord dama bëggoon rek nuyu suma confrère maître Amadou Ali Kane di am mbégte également di bokk moom li nga xam ne moom mooy waxtaan bi. di fàttali rek ne tey comme ni ñu ko waxee fukki fan ci weeru décembre. aduna bi yépp dañuy màggal li ñuy wax anniversaire u déclaration universelle des droits de l' homme ren yemboo ak 62e anniversaire bi hmm. ah te c' également ak pas bi moo tax nga gis thématique bi ñu retenir mooy reconstruire en mieux mooy moo naam tabaxaat bu baax loolu xëj na Euh, li tax suñu économie yi dem ci tabaxaat seen euh, état yi dem ci tabaxaat seen économie moo tax ñu wax mais tey dafa am bés bu am solo la parce que bu weesoo xëj na kuréel yi nga xam ne ci àdduna bi ñooy natt réew yi tey citoyen bi également dafa am xalaatam bu mu war a joxee ci nan la àq ak yelleef doomu aadama tëddee. Mhm. te gis ngeen ne tey Sénégal ñu bari jàpp nañ ne wax dëgg yàlla ay la yëwén te am na liggéey bu rëy bu ñu war a defaat àq ak yelleef ama doomu aadama sooxewul ci réew mi. loolu nag am na lu ko mën a firndeel aussi loo xam ne nii du rek gis-gisu citoyen bi mais am na ay kuréel yoo xam ne ni ci àdduna bi dañuy saytu également réew yi euh, am na benn rapport Union européenne 2018 sur la démocratie et les ak ak li nga xam ne mooy wàllu ak yelleef doomu aadama mhm. gisoon nañ ne ko ba mu càmbaree Sénégal dafa waxoon ne de façon globale situation droit de l'homme yi satisfaisante na amoon na ay trois catégories yoo xam ne nii mhm. waxoon na ne Sénégal war nañ ci def ay jéego bi ñu ci génnee fan yi ñu génn gis ngeen le rapport moo Ibrahim indice moo Ibrahim muy placé Sénégal ci top 10 bi maanaam fukki réew yi nga xam ne ci wàllu bonne gouvernance te ci gouvernance bonne gouvernance boobu dafa am ñeenti axe benn bi participation lañ koy droit de l'homme mhm. Sénégal daf ci am rang bu baax ba pare def ci jéegu bu rëy nag bu rëy rëy boo xam ne ni également dañ ko souligner ci ci ci ci ci ci top 10 boobu mhm. beneen bi ci tegu beneen nattuwaay bi gis ngeen ne que Sénégal de 2017 bokkoon na conseil des droits de l'homme des nations unies muy kuréel gu am solo nag ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama ci réew mi parce que benn organe la boo xam ne nii réew yi ñoo ko seq ci nations ci système des nations unies mu nekkoon ci membre mandat ñetti atam ci biir mandat ñetti at yooyu tam ko 2019 mu nek président conseil des droits de l'homme des nations unies mhm. bi mandat ñetti at yooyu jeexee gis ngeen ne dañu Sénégal ak 188 voix te ci groupe Afrique Sénégal mu ci jitu kon mhm. même amna sax ci Europe ci aduna bi Sénégal daf ci am taxaway bu rëy ci rang nga xamné mom la jël donc lolu yépp mhm. ay xeetu kay la yo xamné ne nii booleeg nag gis-gisu citoyen bi parce que dama la rappelé ne la su weesoo organe onisien yi nga xamné ci lañuy naté lu melni examen périodique universel ak les les comités les comités yi nga xamné ñom ñoom la ñu samp tey expert nekk ci citoyen bi également dafa am nu moom nu mu percevoir li nga xamné mom moy ak àq doom doomu aadama perception globale bi ñu am tay ci Sénégal jële ko ci citoyen bi mooy c'est une perception quand même positive. positive ak ak yelleefu doomu aadama yi waaw d' accord dinaa dellu si yow euh, léegi léegi euh, maître Pape alors euh, maître Amadou Ali Ali Kane ak ak yelleefu doomu adamay droit de l'homme dafa barité dafa barité wouté maître maître sen mu koy mu koy wax léegi. ndar xëyul sotti gaanu ngi def ay jéego waaye am na lu des euh, ñi nga xamante ni euh, kàddu yi ñuy yëkkati yenn saay bu ñuy euh, ci antenne bi le bokk na ci ñiy ñaawlu ni ñuy salfaañee seen i àq yi moo xam yenn saay nga bëgg a yenn saay nga bëgg a def li ainsi de suite ñu tere la est-ce que loolu tamit des ko xoolaat. waaw maa ngi alors léegi man dama jàpp ni nit ñi ñuy déglu ëpp ñu leen xel. Mhm. bu ñu leen expliqué ñoom seen bopp dañu mën a xam ndax droit de l'homme yii ñu ngi koy respecté respecté wuñ ko. Mhm. loolu moo tax fi may commencé mooy expliqué luy droit de l'homme mhm. droit de l'homme gis-gis la gis-gisu àdduna boo xamante ne dafa jàpp ni doomu aadama boo gis am na ax ak jëleef. yoo xamante ne moom lañ ko jagleel. alors ñan ñoko ko jagleel moy constitution dëkkam moy loi dëkkam moy convention sous-régionale convention régionale convention internationale ñoko avons ko jox ay droit mhm. alors droit yooyu nag boo leen boolee man nga def en plusieurs catégories dafa am a un droit civil et politique Le lolu man fa droit de liberté de manifester le euh, droit à un procès équitable le droit fa euh, élection démocratie civil, droit droits civils et politiques Moi, première génération de droit mhm. deuxième génération de droit moi les droits économiques sociaux et culturels mhm. alors le droit à la santé droit à l'éducation droit à l'emploi au travail Moi, moi deuxième génération mhm. troisième génération le droit à un environnement sain Madame Dal, nga mën a alors ce rôle d'une affaire. Euh, loolu dàq na ay inondation dàq na ay salte mhm. dàq na da nga maam euh, ay euh, ay ay odeur ay fumée tout ça là. daal nga nekk fu sell. voilà nga nekk fu sell. Mhm. alors loolu nag ginaaw bi ma leen firee xam nga nit ñi bu ñu xoolee xam ne fii am na droit yu bëri des na. Mhm. boo droit jëlee droit civil et politique xam nga ni fii ñaari fan ci ginnaaw rek. amna ay jeunes yu demone déposé autorisation de marche préfecture yu jàpp leen. ba di atté ba di len ba di len di atté ba len di àtte démb len leen àtte. Hmm. xam nga loolu mom wane na que am problème. Hmm. xolé euh les droits économiques <coughs> sociaux droit à l'emploi tey ken ni kenn xamul ñaata doomu Sénégal ñoo dé ci géej hmm. ndax bëgg dem fenen wuti fa liggéey lo xamante amuñu ko fii. léegi nammeeku nañu sax ay xale yu ndaw a ndaw ñoo ngi leen di dugal ci ay gaal ba ñu ci ñàkk seen bakkan démb barke démb rek lañ ci doon atte ay nit fële ci buur mhm. kooku ñëpp gis nañ ko boo jëlee droit à la santé tey ñu ngi nekk ci jamono deuxième vague covid ñëpp xam nañu santé bi itam des na parce que tey jii boo feebaree mhm. néew nañu am couverture maladie mhm. tey ci Sénégal boo feebaree boo amulee xaalis amoo mbokk

chaque métier diganté policiers policier ak gendarme parce que fayu ay bourse té chaque deux mois trois mois loolu amat donc dama bëgg né rek ci suñu réew mi bari na ay do yoo xamantene vraiment ñu ngi sox manam respecté wuñu leen entièrement hum. mais aussi à la décharge du gouvernement mo wax ni aussi les droits de l'homme sont des droits yo xamantene alors euh, dafay euh, dem ak di ñëw. mais mais ci li nga lim yëpp euh, maître est-ce que gis nga ne ay jéego mu ngi ciy am. waaw xam nga comme ni ma la waxee rek les droits de l'homme sont évolutifs. Mhm. day am ay jéego léeg aussi mu dellu dafa mel ne rek les vagues de la mer. Mhm. léeg mu am ay vagues di ñëw léeg mu dellu. léeg ay vagues yu métti léeg mu wàññeeku léeg-léeg géej gi ne teg. bon mën na jàpp Sénégal nekkul dictature waaye itam.

il y a des insuffisances. D'accord. Alors, Maître Papsen, pour euh, Maître, Maître euh, Kan, euh, Maître Papsen, pour Djehal, sur la base de ce que euh, Maître Amadou Ali Kan wax, yaakaar nga ne jéego bi buñ ko def pour appuyer sur l'accélérateur, accélérateur nun ko mën a waxee fan lañ koy vous waaw dama rek peut-être à mon confrère Maître Amadou Ali xam na ko sax d'ailleurs, parce que droit la liberté yëpp dañ leen encadré ci encadrement boobu nag dafay am ay restrictions yoo xam ne loi moo koy indi defe naa ne dégg ngeen barki démboo Ndiaye arrêt cour cour européenne des droits de l'homme bi mu joxe en deux mille dix-huit mm. ci koo xamee ne que ni aussi une citoyenne autrichienne la wax yu ñaaw yi mu tegoon ci deru euh, Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mais gis nga lii ci cour européenne des droits de l'homme wax ci wàllu liberté d'expression parce que nee na bokkul ci jël di wax teg jël lu ñaaw di ko teg ci deru communauté bo xamni ne mën na fitna lolu ci liberté d'expression mais est ce que liberté d'expression au aussi maître est ce que amul ben vide juridique quelque part parce que bo né liberté d'expression rek bàyyi noonu ñëpp dañuy yakarne ne lu liberté yëpp liberté yëpp comme liberté de manifester suñu réew dañu wax nek que soo def amul le système amul le régime de l'autorisation, c'est le régime de la déclaration préalable encadré maintenant par l'autorité administrative foofu xëy na fa la restriction yi am mais bu ñu rek.

rural bi le PUDC dafa am benn révolution bu mu indi ci approvisionnement en eau man xam naa ci dara. waaw mais bari na mais maître bari na ay forage yu pande. mais moo tax ñu ne moo tax ñu ne programme yi mu ngi fi yi jël en charge ces questions mais am na jéego yu ñu war a gën a parce que parce que parce que parce que il faut ñu wax programme yi nga xam ne c'est des programmes salutaires c'est des programmes positifs ci wàll yi nga xam ne dañuy permettre ñu atteindre un peu ñu gën a saafara li nga xam ne mooy les droits économiques sociaux et culturels parce que droits économiques sociaux et culturels tey dañu ko war a boole ci toutes les tous les programmes de développement économique te loolu gis nañ ko ci PUDC gis nañ ko ci CMI gis nañ ko également ci yeneen programme de développement yoo xam ne nii état bi mu ngi koy mettre en œuvre rawatina programme d' action prioritaire. d' accord kon daal kon daal da nga jàpp ne après après après Covid bi. d' accord kon da nga jàpp ne daal bu programme yooyu yëpp yembee Sénégal daañu ko ne gongo non nous wax ne dañ ne ko gongo mais programme yooyu dina am lu mu indi lu bari ci accès à ces droits là yi nga xam les droits de la deuxième génération droits économiques etc. même les droits de la troisième génération parce que droits de la troisième génération c'est les droits collectifs mu wax le droit en environnement déjà en 2016 inscrit nañ ko constitutionnaliser nañ c'est un pas en avant mmh. réforme bu ñu war saluer la maintenant li des mooy il faut ñu jël ay mesures concrètes yoo xam koy jëmmal pour que nous am pour que nous mun a dabu déjà Diego yi vraiment réforme mhm. et puis volonté politique également mu Passe fi. pas-pas passe pas-pas il ne faudrait pas qu'on s'arrête dañu war a accélérer te ñun loolu mooy suñu rôle bu ñu gisee gouvernement bi di def loo xam ne nii mu ngi tax nit ñi mën a jot ci seen àq ak seen yelleef dañu koy souligner mais bu fekkee nag am na fu ñu war a gën a mettre le focus ñu def leen ay recommandation pour ñu mun a améliorer taxawaay bi. d' accord ñu ngi lay gërëm maître Pape Sène kan ma jël ma ma ma jeexal ak yow ci li mu wax dégg nga ko euh, ñu ngi def ay jéego mais des na xëy na bu lépp sottee euh, problème yu bëri danañ ko régler. xam nga li ma bëgg a wax bu mu profité bëgg jàllale son bilan des droits de l'homme nga xamante ne dafa nekk bilan boo xamante ne dafa desandi ci lu bëri. Hmm. ba noppi itam il faut que ñu jàpp lenn c'est-à-dire que les droits de l'homme ne sont pas donnés une fois pour toutes. bépp réew bi jël muy États-Unis muy France muy feneen amul lenn réew boo xamante ne mën na ne way tous les droits sont respectés. Hmm. mais y a un minimum qu'il faut respecter. Hmm. loolu la ñu laaj fii ci Sénégal le minimum alors minimum boobu nag il faut que ñu dem ci loolu nit bu bëggee joytu ñu may ko fu mu joytu parce que force de l'ordre yi teg par exemple pour interdire manifestation bu ñu defoon moitié bi pour mu encadrer mais manifestation ba am te coow du jit hmm. pourquoi duñ mu def loolu ak yeneen ak yeneen le droit à l'eau mais ça c'est le minimum tey jii nii bari na ay koñ fii ci Dakar amuñu ndox boo jëlee santé bi noonu dañu ne droit yooyu c'est le minimum y a un minimum qu'il faut respecter en matière de droit Mhm. mais moom nee na programme mais moom nee na programme i nguur gi sumb bu sottee euh, bu bu lépp sottee dina régler yu bëri. xam nga moom xaaruñ si moom mu nekk l' avocat du gouvernement moom se est le président du comité sénégalais des droits de l'homme il doit le conseiller du gouvernement en matière de droits de l'homme di leen indiqué fu ñu war a li ñu war a def li ñu war a prioriser mais pas ñëw fii mel na le porte parole du gouvernement en matière de droits de l'homme désolé confrère loolu mooy sa place mais li bëgg wax rek. non moom nee na nee na bugg non euh, maître nee na bu gouvernement bi defee lu baax dana ko ne li fii baax na bu deful lu baax aussi mu ne ko waroo teg. est-ce que dégg nga rek fi mu ne deful lu baax. tout ce qu'il a dit c'est un bilan flatteur li mu wax yëpp yëpp yëpp na li ne li nar a ñëw encore daxati c'est ce qu'il veut nous expliquer mais dama bëgg ñëpp xam ne man nekk moom di accuser gouvernement bi di ko wax loo xamante ne amul. Hmm. amul àddina bi benn réew boo xamante ne tous les droits de l'homme sont respectés amul mhm. loolu mënul am Sénégal tam mais dama ni y a un minimum boo xamante ne war na nag mën a am ci réew mu ne minimum boobu nag ci la ñu woo gouvernement sénégalais d'accord il faut que ça soit clair loolu laa wax d'accord ñu ngi lay gërëm maître